incha allahu nañ ko daan defee rek nag Babacar lañ koy defee ndax ñun la sunu Serigne Cheikh Serigne Mamadou Mansour daan wax na woon ñëwoon la woon fa waaye ba faaw euh, amul dara lu nu soppi ko bi nu amee ndigal mu jógee ci Serigne Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane wàcc ci Serigne Cheikh Tidiane Sy Mansour mi nga xam ni mooy xalifa kër Cheikh Serigne Mamadou Mansour mi ma yàlla booleel wàcc ci sunu mag sunu Serigne di Seydi El Hadji Malick Sy Maodo sunu bàyyi El mu Muniru Njëgën ak ñu nu ko seqal bi ñu waxtaanee ñoom ba jot ndigal li. nañ ko daan defee rek euh, vendredi bi daanu def xadaratu jumaa bi si jumaa ji sunu mbokk imam Abdoulaye Cissé bu ndar moo koy waxtaan bu ñu xëyee samedi bi def kaamil yi kaamil yu takkoo takku ngir ñaanal ñi jiitu waaye ñaanal itam réew mi di Sénégal ndax euh, lii nuy def bu jàmm amul duñ ko def kon ñaanal réew mi yàlla dolli fi jàmm dolli fi dal ba fi nu bëgg yóbbu réew mi yàlla mën ko faa yóbbu ndax gàmmu gi de la vendredi samedi dimanche vendredi dañuy xadara samedi bi ñu gàmmu dimanche ñu def ziyaara bi nag toog ziyaarante mbokk yi fu nit jógee ñu recevoir la dalal la ba jant bi soo ñu fiy ñëw kenn ku ne ñu seq yow la ñu war a seq yow ci wàllu ziyaarante loolu daal mooy programme mu gàmmu gi Babacar. Euh, damay faral di wax ni bi yàlla ne qul illahumma malikal mulk tuutil mulka man tasha je pense que dañu koy jàng rek te duñu ko duñu ko dégg daal yàlla ni may jox nguur ku ma neex. Babacar nañu xool présidence présidentielle yi 2024 mi euh, yàlla tànnee nga xam ni euh, du kenn ku tànn ku dul yàlla ñu nu doon yaakaar ne ñooy doon président yëpp ndekete du ci kenn yàlla jekki def ci xelu euh, président Pastef Ousmane Sonko mu tànn ni jomaay fekk jomaay jooju la yàlla and moo tax mu doon jomaay moo tax wooree ci kaso bi Corée ci pale bi kooku jàngat la bu rëy bu ñu war a xalaat yàlla def loolu tey jomaay mi toog bu sañoon fi mu toog Ousmane Sonko fay toog waaye yàlla ni ko déedéet yow yaa fiy toog yow laa programme loolu jàll ñu war cee def jàngat yu bëri ñu dëtmal législatif ñaata yoon lañ ko fi def bari na trop euh, lu ñu mën a wut ñi yàlla ni 165 députés yi pare nañ maanaam ñi yàlla ni ñii ñooy dem assemblée pare na kon li des mooy wutin wu rafet ñu moytu violence muy nag ci cas yëpp gis nga fi mu nekk boo seetee candidats yi am na ñoo xam ni nit ñi sax duñ leen seetlu ñu ngi wax discours bu leer bu rafet boo xam ni ñii am nañu vision waaye boo seetloo sax nit ñi sax duñu seetlu yooyu discours damay bañ a tudd waaye boo seetloo ñooñu da ngay xam ni ñii ku leen dugal assemblée vraiment ay responsable la fay toog waaye nit ñi ñan la ñuy bëgg a déglu ñuy saaga di wax wax ju bon di di yëngal ñooñu la ñuy bëgg di déglu ba day mel na boobu boobu yooyu nit la ñuy xaar pour ñu wax kon may ñaan kaay yépp kenn ku ci ne na woote jàmm na wax jàmm ñaari carte rek am bi ngay def ci urne bi ak salaam yi may ñaan sénégalais yépp bu dimanche le 17 ku xëy demal voté téyel sa làmmiñ dellul sa kër jarul voté ba pare dajaloo ci mbedd mi di wax mais votel dem sa kër loolu laay ñaan bépp sénégalais ndax ñi nga xam ni ñooy voté ji bu dee ku dem dugal sa carte dellu sa kër jàmm dina am résultat yi génn ku yàlla ni yaa ëppale chaise nga jël kenn ku ne topp ci ñu ndokkalante félicitante continuer Sénégal jëm ci kanam ndax fii mu ne lu ñu mën a am te amuñu jàmm duñ ko tal Babacar lu waaye di wut ba am ko te amoo jàmm di ko fa bàyyi milliard bu àndut ak jàmm amul benn njëriñ kon nanu nanu wax jàmm la ñu dox jàmm réew yi développé yëpp ci jàmm la développé benn réew du développé ci ay ay député yi nu ko fas yéene dénk ñu xam ni peuple bi lañ fa toogal ñu xam ni euh, image yu Sénégal lañu ci seen toogin ci seen waxin bu ñu dugg ci assemblée bi mukk duggee ko assemblée pëccëxoo lu neex waay def lu neex waay wax nañu ko weesu nu weesu boobu étape nañu xam ne sénégalais yi leen tànn yóbbu leen fa nañu fexe ba li yitte sénégalais yi ñu dox si ñu wax ci loolu mooy li nga xam ne moom la dénk député yëpp di jël nag suñuy responsabilité si bu wax jotee ñu wax fa man shaa fal yuumin wa man shaa fal fu ku mu neex nga gëm ku mu neex nga wàcc waaye nag bu wax jotee daa ñu wax loolu la ñuy yonent bi déggal man raa mun karan fal yughayyir bi yadihi lu ñu ji si réew mi te jaaduwul ñu ko dindeeg sunu loxo nguur moo ko mën na ko dindeeg loxoom fa in lam yastati fa bi lépp loo xam ni jaaduwul te ñu war koo wax am nañu kàddu daanu jël wax ko ñu ko war a dégg dégg ko bu dee nag mënuñoo wax ñu téye ko ci suñu xol xam ni lii xew neexuñu waaye téye nañ suñu xol ñun nag tollooguñu ci jàpp ci suñuy xol dañoo toll ci di wax daañu wax daanu suñu kémtalaa yàl kàttan ba nit ñi nekk ci jàmm